mais dañoo gisoon nga jub ci combat foo toll ci sa combat noo non xam nga ne euh, chauffeur bu ut permis bu ne. dawal lay ñaan. am dët waaye mbër mu ut licence bu ne. bëri la bëgg. kon promoteur bi su ma wooyee ne ma damaa bëgg sa combat. combat bi jafe woon lool si man. mu dem ba woo sama ménagère mu coupé ko di ko dugal ay li mu saraxu pour mu pour ma bëreel ko. mu joxoon ma avance non joxuma woon avance mu ne ma tant que waxaale nañ dinaa la jox loo xam ne da koy téye pour ñu wane ne am nga combat mu joxoon ma cent cinquante mille ne ma téye ko sa loxo ma téye cinquante mille yi novembre la ma ko jox xalaat novembre ba tey ma ne koñ koy tëgg mu ne ma janvier ma ne ko mënu ma bëre janvier mu ne ma naa ko tëgg février février yi jot tëgg ko mu ne ma naa ko yóbbu avril ma ne ko bu ma bëree Thiès du ma bëree Diourbel du ma bëree Tëngéej Iba Mar laay bëre war arène nationale mu ne ma si ñaari escombe stade laa ko tëggee ma ne ko may naa la affaire du ko romb kon xanaa bu demee bay jàpp datam dina ma woo ne ma karaakat damaa bëgg a jàpp dat waaye su ma ñaanee ma may ko mu ñaanaan ma avril ma may ko te ba may jël ma ne ko nii xamoo arène bi kañ ubbi mu a ma du ma romb ak yow avril kon bu ma jéggee dégg mu ne avril mai juin le 20 juin te tey dégg naa ci si si ay gémmiñu nit ñu ne ut na estatu ba bëgg fa yóbbu làmb ji contrat ndax suma contrat man ak moom li ñu waxoon non man na sëkk yoreetuma ko contrat wax dëgg yàlla yeneen bi jotoon ngeen avance bi bi mu la koy jox jotoon geen ko signé wala dafa dagoon njëkk. non man ak moom signé wuñu signé wul ak sama manager dafa wax ak sama manager génneel ko fooy ne ko signé sama manager na ko u ubbeegul avance ñëwagul amagoo daj jox góoma lenn lu may signé yaa may maa moom moom dara tënkuma si ñëwuñu si dara si dara si dara. kon oh, kaay toog da ngay sànni kàddu après. kon kon kon su ma déggee. yaram kii après nga ñëw. kon su ma su ma déggee wax ji daal mooy sa combat yow ak Mama Yaa taxawul. non Mama Yaa yorul maag maag maag euh, Faye. non contrat. li ma waxoon. dèjà. Dakar la ñu waxoon. nee na laa mujj Tëngéej la. décembre ok. lu tax nga bañ a ba maanaam tey man sama capacité. arène nationale nekk fii euh, nu mu tuddati Iba Mar nekk fii lu may def tëngee ci ay estaatu benn tribune xeebalu ba ko. est ce nekkul maama yaa lim dëkk tëngéej moo tax nga bañ a dem. non non non man man bëri ji naa kon kon du bëre ji Dakar ak Gris Bordeaux Modou la dégg du ko fekki parcelle Eumeu Sène du fekki du fekki kii Pikine. lu tax bañ a bëre ji maanaam loolu contrat yi ñu signé man ak moom lu ñu win wax ba mu leer man ak moom la si gémmiñ ak gémmiñ koo xam ne nee man yoruma xaalis dañoo nekk suma ginnaaw di ma tëggal di ma tëggloo làmb. mais boo yoru nga bàyyi ba yor cent cinquante mille novembre ba tey. nga jàppaat ay derrière ay at yu bëri si ginnaaw ay weer yu bëri xalaatal cent cinquante mille nga bëgg ma see yóbbu dix mois calculer novembre ba tey chaque jour juróom fukk calculer ma ko ba tey kon xaalis bi jeex na sëñ bi am na après nga bëgg ñu bëree lamb ji ñun duñ ci tooñ kenn waaye kenn duñu tooñ non man xalaatuma loolu mais mais mais mais fi mu toll nii su dul moom est-ce que am na beneen promoteur boo xamante ni moo ngi dox combat bi man du ma bëri na Mama yaa bu tëggu suñu combat keneen tëggu ko fay ñu lum ñu fayul mais ma man dama lay wax.